ودود كلي أبدا بالود ودامني أدر وكد ودود كلي أبدا بالود ودامني أدر وكد asalaamaaleykum mbokk yi tey la talaata juróom-ñetti fan ci weeru tamxarit ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru ut ci atum ñaari junni ak nit ak benn juróom-ñetti fan bokkul ci lim yu fàtte yi lim bu rafet la kon tey ci talaata ji rafet na ci lépp li ñu ciy wattandiku mooy ku ca watu wala ku ca daloo wala ku ca ñaw ñaanu bis bi maa ngi sàkku njéggalul yàlla mi aji màgg ji yàlla mi nga xam ne amul benn buur bu dul moom te mooy aji dund ji tey aji des ji tey tuub jëm ci moom astaghfirullah al azim alladi laa ilaha illa huwa al xayu al wa atubu ilayhi xadiisu bis bi yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na inna allaha azza wa jalla yumli li boroom moo kawee mu màgg mi dina yéexe aji tooñ ji maanaam du ko gaaw a mbugal waaye saa ko jàppee di mbugal du ko gaaw a bàyyi xadis bi Buxaari moo ko nettali ak muslim ma مد سلامك بخير ودي لمن ما